faju bi cher na njàng bi cher na luwaas bi cher na mais dañoo damm dañoo sonn dañoo tàyyi ci dund bu cher bi donc libéré féexal Sénégal ak sénégalais yi ci dund bu cher bi ak ak ak nooteel bi lii kon moo tax ñu ne dañuy lancer tey officiellement jàpp leen ne tey li am solo ñu fàttaliku le lancement officiel du chemin de la libération ñu nar a def nag ay manifestation pacifique ci résistance constitutionnelle jéego bu njëkk bi mooy tey conférence de presse de lancement bi dina am yeneen jéego dimanche bi le 19 août samedi samedi 19 août dina am déposé nañ déjà ci table préfet manifestation pacifique Dakar manifestation pacifique Kolda manifestation pacifique Tivaouane manifestation pacifique Kébémer manifestation pacifique Sédhiou manifestation pacifique Kaolack muy juróom benn région département yoo xam ne dinañ amal samedi bii di ñëw déposé nañ ko déjà manifestation pacifique dans le cadre de programme bi ñuy woowee yoonu pexte le chemin de la libération waaye itam Yolande wax na ko ñeneen li ma jiitu wax nañ ko dinañ def campagne de pétition wër Sénégal di signer pour 1062 détenus politiques yi ñu bàyyi leen pour le chef de l'opposition ñu bàyyi ko pour waa Pastef yu ñuy tongali mouvement citoyen yu ñuy tongali ñu bàyyi ko pour siège u parti politique yi ñuy tëj siège u mouvement citoyen yi ñuy tëj ñu bàyyi ko waxtaanuñ guni si waaye foog naa ne mun nañ ut un million de signatures voire deux millions de signatures en une semaine en quinze jours donc loolu tamit ci chemin de la libération la bokk dinañ ut ay signature dem ci sénégalais ne leen lii la ñu bëgg a leen ñu ut si ay millions signature yooyu nag ñu dem déposer ko palais présidentiel ndaxte président Macky Sall la ñuy waxal président Macky Sall moo jàppalu suñu ay doom suñu ay jëkkër suñu ay càmmiñ suñu ay jigéen suñu ay soxna suñu ay jabar donc loolu itam ngeen xam ko ci programme bi la bokk ak yeneen ak yeneen ay conférence ak ñoom seen yoo xam ne mu ngi ñëw ak ay surprise waaye lu mu nekk nekk nekk ay surprise jàpp leen ne nous allons faire une résistance constitutionnelle des manifestations pacifiques kenn nag duñu xooxatal jàpp yi dafa doy bu dee dañ ñuy jàpp di ñu xoxatal ngir ñu nëbatu ngir ñu bañ a réunion ngir ñu bañ a génn ci tali bi dinañ génn ci tali bi pacifiquement dinañ génn ci tali bi constitutionnellement ndaxte de détenus yi seen place du kaso. ñii seen place nekk kaso mooy ministre yuy sàcc suñu xaalis te kenn mësu leen jàpp muy xaalisu xeexu mbas mi boobu ak léegi ça fait trois ans ñooñu la ñu war a jàpp. ñii ñu war a jàpp mooy député yi nekk assemblée nationale ñu jox leen vingt six milliards. depuis septembre 2022 ñu ne ñoom ñoo lànk ñoo bañ kenn du ko contrôler te barki Demba Ndiaye le Japon may xaalis pour jënd ceeb askanu Sénégal donc barki Demba Ndiaye la ñu may ñun Sénégal xam naa ne ñu bëri loolu rëcc na leen parce que information boobu ci benn journal rek la génn muy journal Le Soleil te ndeysaan boo bëggee nëbb dara Sénégalais yi na nga ko dugal ci journal Le Soleil. naa leen siwal information boobu waxtu yi di ñëw Japon moo may xaalis Sénégal pour mu jënd ceeb pour mu dundal askanu Sénégal am yi nga xam ne ñoom dool boobu ñoom ñu ngi sàcc suñu xaalis boobu ñoom nee nañ kenn du contrôler budget asam ñooñu ñoo am seen place ñooñu ñoo am seen classe seen passe seen place kaso ñooñu nga xam ne ñooy tas yaakaar di assassiner l'espoir ba suñu ndaw yi di géej di dee désert du Sahara di dee maire maire Méditerranée ak océan Atlantique ñooñu la seen place nekk kaso waaye du suñu ay mbokk yi nga xam ne ils n'ont commis qu'un seul crime gàcce ngaalaama le crime de vouloir transformer le Sénégal et transformer l'Afrique pour que ça soit un lieu d'espoir un lieu bi nga xam ne Sénégalais yi juddu fi màgg fii yeroo fii tek fii toog fii mm-hmm. a ah, mbokk yi defe naa ne que egsi naa euh, wax naa lépp de defe naa fàttewuma dara man mii dama grève de la faim biir kaso ba sol